juróomi ñaari kaa importé la ñett yi cas contact la yu ñu doon suivre ma leen di yëgal itam ne tey bésu tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout à ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu tay qui commencé ak légui am nañ témèr ak juróom ñen fuk ka fi ci Sénégal ak wër nañ kenn ki qui suñu mbokk borom jëlé ak benn ka buñu évaluer, évalué fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak ñett ñoo hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi demandé leen di continuer di respecter consigne li pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën gagner